Euh, fii ci Wakaam ci biir bio naturel bu Cheikh Omar Diop fii ci Wakaam ñu ngi leen di nuyu bu baax tey nag dañoo am ay waxtaan yoo xam ne dañ ko fas yéene waxtaan ak àddina euh, bi diaspora bi sénégalais yi ak sénégalaises yi mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi waaye concernant pour li nga xam ne mooy avantage Sénégal ak ñooñ Sénégal am ay question yu bëri yoo xam ne dañu ko posé mooy question yu jëm ci wàllu économique ak question yu jëm ci wàllu développement ak question yu jëm ci wàllu patriotisme waaye tamit laaj nañ ñu tuuti ci wàllu éducation comment éduquer euh, les sénégalais naka lañuy def bay yaraat wala yar sénégalais yi nga xam ne euh, laaj nañ ñu yaraat leen wala ñu fàttali leen waaye li may njëkkee ci wàllu économie ci Sénégal nga xam ne àddina bi tey ñu ngi nekk ci benn kurs boo xam ne euh, ku nekk mu ngi bëgg a nekk ci kanam suñu fàttalikoo ci ginnaaw ci taabu yàgg ci walla mën nañu wax yàgg na yàggul soo xoolee lu mel ni Chine nga xam ne yàlla dogaloon na am na benn moment ñu guerre am fa ñu ek rey leen tar delloo seen réew zéro ñoom ñu takkaayu ñoom en tant que chinois ñu toog ñoom ñëpp ñu ne léegi nu ñuy def pour développer waat seen euh, seen réew mooy naka la ñuy def mooy dañuy nekk benn jëmm bokk lu ñu bëgg bokk lu ñu bañ tey mën nañu wax ne tey réew bi gën a nekk ci kanam tey mën nañu wax ne su dut Amérique Chine la wala muy Chine di Amérique kon lan moo leen ko may mooy nangu liggéey ak patriotisme moo leen ko may Sénégal nekk réew moo xam ne réew la boo xam ne li fi nekk ci ay kàngami xam-xam ak ay ay ak ay référence ak ay valeur logiquement waruñu woon toog ñun ba vingtième siècle walla vingt et unième siècle ñuy xaar dara luy jóge feneen di ñëw ci suñu réew pour ñu am dara lu ñu war a yokk ci suñu bopp Sénégal nekk réew moo xam ne réew mu am ay valeur la parce que Sénégal valeurs yi sénégalais yi wala valeur u bokk na ci añ jot ñu ne la kaañu añ le mot kaay ñu lekk loolu dafa nekk valeur boo xam ne doo ko fekk ci fenn ci àddina fu dul Sénégal Sénégal ngay ñëw gis koo xam ne dafay ñàkk nga gis nit jël ko héberger ko yor ko dimbale ko ba mu àgg foo xam ne tey mosu fa àgg senegal mooy réew moo xam ne dangay dem ci nit tàllal sa loxo ne ko ñaanal ma mu ñaanal la yàlla def ci yow réussite nga ne diw moom ma ñaanal senegal am na valeur yooyu Sénégal tamit am na valeur yoo xam ne nit dina ñëw yor benn société wala mu yor benn organisme wala mu yor benn njiit wala mu mbootaay bëgg a def dara kilifa toog fële ne ko bu ko def bàyyil mu bàyyi Sénégal am na valeur boobu Sénégal am na valeur boo xam ne valeur bi Sénégal am nga xam ne sénégalais yi war nañ ci tenir compte war nañ ko tiye valeur yooyu bokk na ci nga bëgg a def dara sa kilifa na la bu ko def nga bàyyi ko loolu ci Sénégal rek la am valeur yi sénégalais yi am yooyu dañ ko war a euh, fàttali sénégalais yi bàyyi loo ci xel pour ñu mën a xam Sénégal biñ bokk ana naka lañ koy téye maa ngi ñëw nag ci wàllu économique bi valeur yi laay wax pour ñu mën a xam. économie réew mi naka lañ koy tabaxaatee ak naka lañ koy sàmmee pour nit ñi mën a euh, mën a jëriñu ndax lii su fekkoon tey ci wàllu livre la ñu koy bind ci arabe boo demee dañuy wax xasal xasal mooy ngay wax ci dara bañ foog ne loolu la tax a jóg nga ko àgg ci li la taxoon di jóg souvent ñu def ko ci jigéen wala ñu def ko ci picc wala ñu def ko ci njanaaw wala ñu wala ñu def ko ci leneen waaye man li ma bëgg mooy ñu def ko xasal bi ñu def ko ci wàllu li nga xam ne mooy valeur valeur yi nga xam ne am na ci réew mi Sénégal am na jël sa doom yóbbu ko ci koo xam ne gis nga jikkoom mu neex la jikkoom doy la nga jébbal ko ko pour lan mu transférer jikkoom bi am ci sa doom pour mu mel ni moom loolu valeur yooyu Sénégal am na ko senegal am na tamit nga nga nga gëm nit ba nga xam ne doo sañ def dara lu ñaaw ndax nit kooku senegal am na loolu Sénégal am na tamit nga nga bëgg a def dara sa xel daj ne niiwu sàngam bugguma mu yëg ne lii man dama koy def Sénégal am na valeur yooyu kon valeur yooyu yi nga xam ne Sénégal am na ko Sénégal tamit am na nga nga nga am doom mënoo koo yor nga jël sa doom may sa sœur wala nga jël sa doom may sa nijaay wala nga jël sa doom may mu téyeel la loolu Sénégal valeur yooyu Sénégal am na ko Sénégal tamit am na ay valeur nga gis doomu jàmbur nekk ci mbedd mi di def lu xam ne nekkul yoon nga corriger ko yaayam wala baayam ñëw ànd ci Sénégal am na valeur yooyu Sénégal am na valeur yoo xam ne nit ki mën na ñëw du am métier ñu jël ko cadre ko tabax ko ba société bi reconnaître ko valeur yooyu Sénégal am na ko Sénégal am na ay valeur yoo xam ne nit ki mën na réussir te du am benn diplôme Sénégal am na valeur yooyu Sénégal am na valeur wu nga nekk nit koo xam ne da ngay jàng ba pare nga bàyyi sa spécialité bi nga spécialisé wu dem def leneen pour réussir ci loolu ñu jàppale la ba nga taxaw Sénégal am na valeur yooyu kon d'une manière générale suñ bëggee wax économie réew mi ci yan aspect lañ ko war a teg ci yan idéologie yi lañ war a delloo siwaat wala wala lañ war a teg pour nit ñi mën di dund ci loolu pour xam ne réew mi ñun la engagé ñun ñooy def développement bi ñun ñooy tax ñu recadré waat réew mi pour mu méngoo ak li nga xam ne moom la fi la àddina tollu tey parce que àddina am na nu muy doxee tey mais soo xoolee par rapport ak euh, discipline nu Sénégalais yi dafay contradictoire par rapport ak fi àddina tollu tey Sénégal amagul Euh, nit di dem ci arrêt car fekk car bi ñëw ki fa jiitu nga xaar ko mu dugg te doo njëkkalante daw dugg ci car bi Sénégal amagul loolu te vraiment àgg nañ ci niveau foo xam ne ñun sénégalais yi soo demee Niger Nigéria Tchad Ghana Togo Mali yooyu yëpp ak Gambie ba fu ne nekk ci àddina bi am nañ ñooñu fa dëkk ci réew moomu dañuy tiitaroo doomu sénégalais yi dañuy tiitaroo Sénégal. te boo demee ci réew yooyu da nga fay fekk discipline boobu kon lan moo ñu lan moo ñu empêché ba tax loolu ñu manqué ko donc man su may wax ci côté économie su may wax ci côté économie bi damay wax ne dafa am ay aspects yu bari yoo xam ne il faut ñu revoiraat ko il faut ñu cadré waat ñi nga xam ne ñoo yor loolu di ko doxal ku mel ni man exemple comme man parce que mbay ci sawewu tànk man damay gis ne man Cheikh Omar Diop alhamdulilah maa ngi sant yàlla ci lu bari euh, am na parcours boo xam ne euh, jaar naa ci te gis naa am naa expérience bu bari boo xam ne euh, mën naa ko partager ak sénégalais yi waaye daf am yu sew sew yoo xam ne. man dama ciy tenir compte dama koy jël comme ay repère dama ci bàyyi xel xëy na ñu bëri seen réflexe àggul ci yooyu bokk na ci soo demee jël pour pour développer réew mi Sénégal tey pour développer ko ku ne xam na ne réew pour mu développer il faut mu am ay yoon il faut mu dem ak dikk bi gaaw dem ak dikk boobu noonu nga xam ne mooy wàllu routière nit ñi nga xam ne ñoo yore système boobu di ko doxal tey benn bés dama xëy toog ma ne man tey dinaa xool Sénégal ci wàllu déplacement yi nga xam ne sénégalais yi dañ koy def tey nga xëy jugee Dakar war a dem Pikine masalan masalan exemple pour nga dem Pikine jugee dakaar dem Pikine il te faut trois heures de temps. trois heures de temps yi nga war a def pour jugee Pikine dem dakaar jugee dakaar delluwaat Pikine wala quatre heures de temps soo ko tàllalee pour dem ko Tambacounda daf lay yóbbu Tamba mais am na yu tuuti yoo xam ne moo waral perte de temps boobu ma def ci benn jàngat ma ne léegi xoolal lu mel ni taksi tey ma jël ma jël exemple comme taximan yi nga xam ne tey dañuy dawal taksi ci réew mi. moo tax mës naa wax euh, benn nit ma ne ko tant que bàyyiwuñ je suis sénégalais Sénégal du développé il faut qu'on parle je suis c'est moi le Sénégal man maay Sénégal mais doo wax man sénégalais laa gis nga soo waxee man sénégalais la mooy waral nit ki mën a dem ci mbedd ma tuur fa tuur fa ndox mais su fekkoon ti es le Sénégal soo considéré woon sa bopp comme yow yaay Sénégal doo jël ndox mu ndox mu tilim di ko xëpp sa kaw il suffit que nga jël ndox fóot ba pare wala raxas ba pare wala nga defar sa euh, bopp ba pare say bason ba pare nga jël ndox moomu nga tuur ko ci kaw tali bi mu ngi mel ni nga jël ndox mi xëppoo ko ci sa kaw yaram loolu amul benn différence ak loolu moo tax su fekkee ne yow sénégalais nga yow da ngay mën a tuur ndox ci mbedd su fekkee yow sénégalais nga da ngay fomp sa musuwaar sànni ko ci mbedd mi mais bu fekkee yow yaay Sénégal yow doo jël mbalit di ko xëpp sa kaw doo jël ndox di ko tuur sa ndox mu tilim di ko tuur sa kaw te tamit doo gis kenn kuy loru ci population bi ngay am xol bu neex tamit doo gis kenn kuy def naka sudul noonu nga bàyyi ko ci donc su ma jëlee comme le cas des taximans pour wàllu développement wu Sénégal soo xoolee benn taxi bu nekk ndax idéologie taximaan yi lenn moo ci nekk comme ñoom dañuy fay droit euh, da droit de euh, euh, stationnement dañuy fay droit boobu waroon nañoo xam ne droit bi buñ koy fay ci seen poche lay dem mais demul ci poosu état parce que ñoom ñooy état parce que ñoom ñooy tax ñoom ñu ñu fay salaire yi te salaire yi ñu koy fay seen frère lañ wala seeni nijaay kon droit boobu ngay fay waru fay bi ngay fay droit bi waru la nga nekk ennemi contre l'État wala nga nekk ennemi contre euh, contre circulation bi parce que yow comme yaa ngi fay droit euh, stationnement warul tax nga ne man comme man dama koy fay damay bloquer circulation bi ba sama besoin pare ma soo ko dem kooku sénégalais la mais su fekkee tu es Sénégal yow da ngay naan xaral ma rangé wu bàyyi amut bàyyi circulation bi mu dem parce que benn seconde bi nga xam ni oto bi ci sa ginnaaw mu ngi koy taxaw soo ko multiplier par mille oto daf lay jox ay heure léegi nag soo xoolee nga jël exemple quand tu prends dix dix mille taxi dix mille taxis soo ko jëlee nga jël taximan bu nekk minimum. dina taxaw cinq fois ci kaw tali bi pour jël client client bu nekk dina ko coûter une minute léegi nga jël taximan bu nekk une minute par cinq minutes par jour dans nga jël dix mille taxi exemple léegi soo jëlee dix mille taxi taxi bu nekk cinq minutes soo ko defee par trente jours nga def ko par euh, douze mois muy trois cent soixante cinq jours daf lay jox. trois cent mille heures trois cent mille heures lay ñi perte ci économie réew mi à cause de les taxes te mën naa te loolu perte boobu mën naa ñàkk perte boobu c'est volontaire dañ ko loolu perte boobu taximan ne ñu ngi koy def mais volontairement lañ koy def c'est pas obligatoire nga jël ko ci taxi jël ko ci car rapide yi car rapide moom doo leen jox cinq minutes da nga leen di jox quinze minutes ndax tax car rapide dina taxaw ci tali bloqué circulation quinze minutes wala 10 minutes mu taxaw foofu ñuy teg yi ñuy ut pour possibilité pour jàll ñoom seen yoon nekku ci. léegi mais tax car rapide boobu ki ko yor mais kooku sénégalais la kooku du Sénégal kooku sénégalais la dama bëgg nit ñi xam ñi nga xam ne dañuy def lu indiscipliné nañ leen considérer comme des sénégalais parce que nationalité bi moo leen ci boolee mais du patriotisme bi quand tu yow tu es Sénégal bu fekkee ne nag sa yoo newu ci économie bi sa yoo newu ci développement bi sa yoo nekku ci heure bi ke sa yoo nekku ci temps bi sa yoo nekk ci perte bi yooyu yow tu es sénégalais parce que da nga fi dëkk comme ça mais sa yoo nekku ci mu jë mu baax mbaa mu bon soo jëlee car rapide bi noonu nga jël Dega Ndiaye pareil nga jël. Euh, tata dem dikk yi pare yi boo jëlee nag ki gën a li kaar yi gën a gën a gën a yées ci kaar yi man waxuma ci mooy mooy dem dikk c'est pour l'État mais c'est pour nous soo toppee ci benn kaaru dem dikk mu nekk ngeen ànd ak moom ci benn mbedd moo xam ne mbedd mu xat la ci kaw tali bi lay taxaw ba moom ngay topp moom ngay topp ba liiñam jeex doo ko mën a dépasé dem sa yoon doo mën a dem à côté pour dem sa yoon doo mun dara li ngay def mooy tu es ñaatam ñaata ñaata de ot voiture wala oto ñooy nekk ci ginnaaw car bi pour pourtant mënul na wàcce benn ponoom ñu comme tali bi dafa xat circulation bi nit ñi lañ ko soxla ñëpp ko soxla mais mën nga wàcce sa benn pono ki ngay jël yéeg après. ki ci sa ginnaaw mën a dem Sénégal avancé mais duñ ko def dañuy jël tali bi ko loolu nag moo am dans les services loolu moo am dans les hôpitaux loolu moo am dans les marchés loolu noonu nag Sénégal sénégalais yi di xeeb loolu suñ ko jëlee ci ay heure ñaata heure la ñu mën a xañ loolu ci côté li nga xam ne mooy côté économie bi loolu exemple laa ci joxe xoolal ñaata nit ñooy ñoom la ñuy jox poste de travail ñu waral a liggéey bi di ko doxal am ñoo xam ne respecté nañu ñëw heure am na ñoo xam ne dinañu respecté ñëw heure mais buñ xasee ñëw li tax ñu bàyyi seen kër ñëw duñ ko def duñu liggéey am na ñoo xam ni non seulement respecté wuñ heure mais respecté wuñ seen liggéey loolu soo ko fekkee yaa ngi koy def yaa ngi tardeel Sénégal te yow tu es sénégalais tu Sénégal tu es Sénégal dafa am ñoo xam ne ñoo opté nekk Sénégal am ñoo xam ne dañoo opté nekk ay sénégalais te nag non seulement lii yoon tey logique mooy ñëpp dañoo war a nekk Sénégal. ma jox la benn exemple ci équipe nationale de euh, de football équipe nationale bi onze joueurs joueurs ñooy dem ci terrain bi mais bu ñu demee af ci euh, coupe d'Afrique <laughs> onze joueurs yooyu buñ ñu gañee dañ Sénégal moo gañee te pourtant Sénégal sénégalais yi ñu ngi ci quinze millions de sénégalais quinze millions de sénégalais onze personnes ñoo leen représenté. mais onze personnes yooyu su doon ku nekk ci mbedd mi da ngay représenter Sénégal yépp ci mbedd mi ci marché bi ci euh, lieu de travail yi ci hôpitaux yi ci euh, euh, fu nekk ci éducation bi ku nekk représenter Sénégal ci secteur bu mu nekk kon Sénégal ci bopp boppam dina développer mais su fekkee ne benn Sadio Mané dafay jéem a nekk Sadio Mané toujours duñ mës a jël coupe d'Afrique parce que quand tu es quand tu es dans le terrain ah, ngay xalaat le mois doo mës a développer ton pays da dem ba ci cas bi nga xam ne bal bii boo ko dóoree du dugg mais kay ma nga taxaw fële boo ko joxee bal bi mu dugal ko nga xalaat ne soo ko joxee mu dugal ko mooy doon l'homme du si wala mooy doon euh, euh, dina nekk meilleur nga wala dana nekk star wala dana di nga foog na dana jël sa place te fàttee nga ne même moom bu nekkee loolu yow yaa ko doon. kon c'est très important nit ki ci jëmmi boppam am xalaatu gis ne moom mooy kii dem moom mooy kii defar moom mooy kii def lépp loolu mooy tax sénégalais yëpp nekk am benn cerveau sénégalais yi am benn benn idéologie mooy développer le pays da nga gis nit nga jël kees jox ko <coughs> boo demee ci dans le dans le dans le de du comment dire les politiciens la soo demee ci seen milieu bi da gis que nit ki dina ñëw nekk ci système bi di di di ñu ñëw ñu intégré ko nga xool ko benn temps lay def rek nga gis ko mu nekk ci niveau boo xam ne dafay dafay dafay jéggi dayoo kooku soo ko xoolee dangay xam ne kii xaalisu réew mi la jël defee ko lii parce que y a un de cela wala wala wala six mois ci ginnaaw fii la nekkoon di taxawaalu tey dénk nañ ko xaalisu réew mi tey mu ngi koy mu ngi manifesté wu pour di di foye alalu réew mi te pourtant même bu jotee ci xaalis bi téye ko mais c'est le Sénégal qui gagne man je pas waxuma bu mu jot xaalis bi man waxuma ko mais bu jotee xaalis bi. modestement na ko na na respecté sénégalais yi naka lay respecté sénégalais yi mooy moom bu fekkee ne moom jël na xaalis bi te jënd ko ci anam bu anam bu jaaduwut mais na ko na ko consommé ci consommation boo xam ne du agressé benn sénégalais su ko defee day tax rancune du am day tax sénégalais yi du ñu mer te il suffit que sénégalais romb la rek nga def benn affaire nga déranger ko wala nga merloo ko moment boobu noonu. arrêté nga arrêté nga arrêté nga intelligence su sénégalais boobu arrêté nga euh, gis-gisu sénégalais boobu arrêté nga yëg-yëgu sénégalais boobu te moment woowu sénégalais boobu taxaw taxawal nga Sénégal ci benn minute boo xam ne yow yaa yow yaay yow yaay cause bi te vraiment mënoon mën na ñàkk tamit Sénégal di ko war a mën a développer dafa bari nit ki nga xam ni. yàlla may na ko sens mu nekk un inventeur koo xam ne dafay inventé mais kooku dañ ko war a téye dañ ko war a dimbale dañ ko war a accompagner dañ koo war a encourager dañ koo war a conserver dañ ko war a euh, protéger mais Sénégal ngay gis koo xam ne da ngay nekk inventeur di inventer ay mbir non seulement duñ la encourager mais dañ lay saboter te sénégalais vraiment ay nit lañ yoo xam ne yàlla may na lañ xarañ ci xel ak gisin ak gis-gis da ngay gis pas mal de choses yoo xam ne sénégale yi ñoo koy ñoo koy inventé mais mënuñu ko réaliser mënuñu ko développer parce que environnement bi ñu nekk walla euh, euh, fi nga xam ne fa lañ nekk ñi nga xam ne ñoo leen di coacher walla ñi leen di yore walla ñi leen di gérer ñoo leen di mujj bloqué waat te loolu dafay répercuté wu ci Sénégal ba nga xam ne tey kenn duñ saña am xalaat génne ko parce que da ngay ragal Sénégal boo xoolee da nga toog lu mat cinq ans wala dix ans doo mës a dégg benn xale bu def lu miracle te lu mila lu loolu tànk amul mooy wane na Séné maanaam réew moomu nekkul réew muy dox parce que pour réew dox il faut ay xaleem. wala ay nitam di jékki-jékki di jéex di génne yoo xam ne yu bees lay nekk te lu lu doon ay équation lay nekk yoo xam ne nit ñi danañ ci jàngee xam ne lii kat diw moo ko créé wala diw moo ko inventé te loolu dafa am solo ci réew. te nag loolu li ko indi waaw waxoon naa ci système éducation bi mais loolu àggaguñu ci maa ngi ci système li nga xam ne mooy wàllu économie bi économie réew mi Sénégal am na ay recettes. Sénégal am na ay valeur Sénégal am na alal mais problème bi mooy da ngay gis benn Diallo Banana jógee Guinée ñëw ci bopp koñ bi teg fa pousse-pousse di jaay ba yàgg mu teg fa taabal di jaay ba yàgg mu teg fa boutique di jaay sénégalais bi nekk jàng am diplôme jàng ba am master 2 wala ba ma am bac plus 5 master man am na ci ay xale yoo xam ne. pas eh, am na ci kenn koo xam ne sax bu yàggul rek ñëw na ci man mu ne naa ko ñaanal pour mu am liggéey pour pourquoi ngay ñaanlu pour am liggéey mu ne parce que dama jàng am naa bac plus 5 maa ngi am master de mais mm, aw ma liggéey fu ma déposé duñ ma jël ma ne ko loolu catastrophe la parce que man je ne peux pas concevoir nit ku am master de bac plus cinq di ut demande service pour ñu liggéeyal la pour ñu pour nga liggéeyal ay nit loolu du yoon. parce que loolu crise la pour Sénégal boo amee master 2 képp ku ko am am nga niveau pour def ay invention wala nga mën a orienter sa bopp nga commencer par zéro pour am ay milliards parce que boo bëggee am ay milliards da ngay commencer par zéro soo commencé wul par zéro mënuloo am milliard te xam naa ne loolu un jour viendra dañ ci mën danañ ci mës a def waxtaan comment naka lañ nit di jëlee zéro pour def ko loolu il faut ñu waxtaan danañ ci mas a am benn bés ñu waxtaan ci ndax mës naa wax def benn waxtaan boo xam ne dama leen wax ne leen gaa yi dañ ñu si gaa yi dañ ñu nax système bi gaa yi créer dañ ñu nax parce que naka lañ ñu naxee mooy dañ ñu wan ne compte ci un la commencé fekk compte ci zéro la commencé waaye ci un la yem gaa yi ñu ne compte un la commencé ba neuf fekk. Euh, li nga xam ne mooy la li nga xam ne mooy li ce qui est mooy compter mu ngi commencé ci zéro waaye jeexee ci un parce que li ma la ci jox comme misaal rek mooy soo compter un deux ba neuf pour am dix wala onze il faut ajouter un et zéro da ngay revenir ci départ bi soo revenir aatee ci départ bi ci ngay amee un ak zéro soo bëggee am dix da ngay jël zéro teg ci kaw nga am 10 soo bëggee am cent da ngay jël zéro teg ci kaw zéro pour am cent 1000 soo ko bëgg ba ba milliard léegi nag naka nga mën a comprendre nga gis un mënut laa may milliard zéro di la may milliard kon y' a secret dans zéro si tu veux quelque chose faut pas aller dans un mais il faut aller dans il faut ale dans zéro. il faut aller dans il faut aller dans zéro soo demee ci zéro fa ngay fekk milliard fa ngay fekk lépp loo bëgg nga xam ne moom nga soxla yaa ngi koy fekk foofu ci zéro naka laa leen di expliquer zéro loolu du wax waxtaanu tey bi du la dama leen di mosal rek ci loolu naka laa leen expliquer ci zéro zéro mooy avant avant ngay ñëw di seetaan émission bi c'est ça c'est ça mais bi ngay ñëwee toog pour seetaan émission bi temps bi nga jël ak li nga jël ba taal ko foofu nga jël zéro def ko muy un parce que yaa ngi soog a taxaw pour seetaan émission bi loolu mooy un léegi nag sero bi mooy émission bi am na mais amul définition pour nga mën ko définir loolu mooy un soo soo ko définiree ba mu nekk dara rek léegi génn na ci zéro ñëw na ci un soo bëggee nekk milliardaire da ngay jógee ci da ngay jógee ci ñàkk yëngatu. jógee ci ñàkk euh, ittee dem ci ittee nga jóge ci zéro nga ñëw ci donc mën nañ ko gën a yaatal mais fi ñu bëgg a dem moo tax ma tënkee ko noonu. kon lii laay wax ci côté économie euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi fas yéene jàll ci deuxième point bi mooy li nga xam ne mooy patriotisme patriotisme nag suñ koy wax mooy baat bi ma njëkkoon a wax. mooy Sénégal et les Sénégalais Sénégal mooy le patriotisme sénégalais mooy ki nga xam ne nekkul patriote ku nekkul patriote mooy wax je suis ku nekk patriotisme nag kooku day wax je suis Sénégal parce que soo nekkee le Sénégal doon doon nekk koo xam ne dangay dangay fen koo gis muy fen du patriote parce que li ngay fen système la bu war a dox ci biir système bi li nga xam ne dañuy dañuy nekk patriote mooy ñi nga xam ne gëm nañ made in Sénégal mais ci quand tu es ma jël un exemple ci dàll dangay wax lii dàllu ngaay la. tu parles pas ça c'est original mais quand même si c'est dal ngaay mais c'est c'est original mais c'est original à ngaay c'est fait à ngaay quand tu quand on fait une, une chaussure à mais c'est c'est une chaussure très très très originale mais dañuy wax consommation locale ça tue l'économie du du pays dalu ngaay ça lii de original kii pakoti la fekk yow ñu ngi jël dàll bi nga xam ne moo gën a dëgër dàll chinois gën a dëgër dàll japonais bi wala américain bi wala bu mënti doon mooy cent pour cent cuir xar nag bi fii lañ ko reyee ci réew mi fii lañ defaree der bi ci réew mi fii lañ daggee der bi ci réew mi mais fii lañ defaree dàll bi mais dàll boobu amul bu ko gën a nekk original mais ana ba maladie moo nekk ci yow ba tax mënuloo gëm ni yow dàll boobu mooy original dàll ci yow est-ce que xam nga ne bépp dàll boo jël mu nekk dàll importé lu mu nekk nekk original du original original pour yow dàll bi nekk original pour yow mooy sa mat made in Sénégal boobu mooy origi vrai original pour sénégalais yi moo tax am na ñoo xam ne pour ñu nekk ay patriote il faut ñu wax leen. xamal leen ne consommation sénégalais cent pour cent sénégalais kooku mooy li nga xam ne kooku kuy def loolu kooku mooy patriote man Cheikh Omar Diop ku ma xool xam ne man je bats pour le Sénégal damay reyante pour Sénégal damay reyante pour être Sénégal waxuma être un être sénégalais de damay reyante man Sénégal man Cheikh Omar Diop pour nekk Sénégal lan man sama objectif mooy Sénégal développé Sénégal nekk la meilleur dans le monde Sénégalais fépp fu mu dem dans le monde ñu reconnaître ko et puis ñu am ay image yu rafet ñu am ay doom yoo xam ne dañu leen di pousser vers le développement et puis vers le patriotisme ñu fexe Sénégalais yi nekk des patriotes naka la ñuy nekkee des patriotes mooy boo gisee maire buy jaay cere maire buy jaayee cere ci bopp koñ bi. nga fekk fa cere ja nga jënd ko gis nga cere ju am suuf hmm? nga jënd ko moo gën nga jënd ñebbe bu jógee Europe set wecc man je suis parce que cere bi bu amee suuf nga yëy ko suuf si jam la nga ne kerec yëy boobu nga ko yëy mu ne kerec di nga waaxu dem ba ci maire bi ne ko maire sa cere ji dafa am suuf maire bi góor góorgóorlu ba cereem ji dootul am suuf bu cere ji amatul suuf mais maire bi développé na Sénégal développé na Sénégal yokku na mais boo fi bàyyee cere maire bi ne cere maire bi dafa am suuf mais kañ la cere maire bi di jël dañ ci suuf maire bi dina ko jaay waa quartier bi ñu lekk ko ñu loru fekk yow am nga possibilité mën a xam ne cere ji dafa am suuf am nga niveau mën a mën a dimbale ki nga xam ne mooy jaay cere ji ki bay bay bi ki bay dugub ji nga mën ko dimbale pour mu jaay dugubam <coughs> mais ñu def consommation sénégalais mais consommation local loolu dafay rey économie y a des termes wala de des wax wax baat y a am na baat yoo xam ne bokk na ci li gën a rey suñu suñu gëm-gëm ah baat yooyu ci la bokk mooy euh, euh, euh, consommation locale quand il dit local dégg bi baaxul baaxul parce que dafay rey li nga xam ne ki nga xam ne moo waroon a bëgg liñ koy jox parce que Sénégal gii ñu nekk mais am na ay étrangers yoo xam ne su vacances yi jotee mais Sénégal lañuy tànn pour ñëw def seen vacances buñ paree dañuy ñibbiwaat seen réew Sénégal ngay gis sénégalais jël vacances mais préféré dem feneen ailleurs parce que li muy uti ca àll ba am na ci réewam mais xam nga lu tax du ko bugg ci réewam parce que soo ko fekkee mu sol kilotom toog ci tefes gi di jël eeram sénégalais bi moo ko fay fekk foto ko wane ko wala sénégalais ba fekk ko fa tiim ko du ko xool loolu mooy tax yow boo jëlee vacances da ngay préféré génn Sénégal mais bu fekkoon ne sénégalais bi bàyyi na la yow sénégalais bi yow bàyyi la yow nga tëdd fi nga tëdd toog ci tefes gi wala nga nekk sa kër tëdd sa kër ñu bàyyi la ci yoon yi wala ñu gis la nga ba nga toog jàpp sa njàmbur mais bu boobaa boo ji vacances jotee di nga mën a toog nekk Sénégal jël sax xaalis dépensé ko si Sénégal développement am. mais duñ ko def dañuy nettali wante dañuy gëstu dañuy dañuy dañ lay jeex loolu bokkut ci patriotisme patriotisme mooy nit ki nga bàyyi ko mu libre nga bàyyi ko ci li ko gisal nga bàyyi ko ci li ko xamal nga bàyyi ko ci li mu moom nga bàyyi ko ci idéologie bi mu am nga may ko liberté mu xalaatee ni mu bëggee nga may ko liberté mu doxalee comme yëg-yëgam mais soo amee dara loo ko bëgg a ah nga fàttali ko ndax alquran moo ñu wax ne fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin na nanga fàttali ndax fàttali dana jëriñ ki nga xam ne moo gëm yàlla moo tax nekk patriote ak nekk sénégalais c'est c'est diamétralement opposé parce que sénégalais bi mooy kii yëg boppam kii defar pour boppam kii def pour moom mais le Sénégal wala la patriote mooy kii def pour tout le kii def pour pour pour pour Sénégal kon patriotisme bokk na ci nga fekk euh, mbalit bu sànni ci mbedd nga buub ko tuur ko patriotisme bokk na ci nga fekk quartier bi tilim nga am xaalis am moyen nga fay saret mu tibb tilim bi sotti ci ko ca mbalit ma loolu ci patriotisme la bokk patriotisme bokk na ci nga sol yëre bu rafet et booy génn respecté sa bopp sol yëre bu correct ba ku la gis du dérangé wu loolu bokk na ci patriotisme ndax bu la étranger bi gisee dina wax ne sénégalais yi dañoo mën a sañse bokk na ci patriotisme sooy wax nga wax dëgg nga bañ a wax lu amul dana tax sénégalais yi ñëpp nekk ci bon voie et puis tax nit ñi di di di di di mën a waxante heure respecté heure patriotisme bokk na ci ngay sol comme man li ma sol sol yëre wolof patriotisme bokk na ci jigéen bi woddu sër woddu sër pour wane ne je suis sénégalaise wala ma sol taille basse wala ma sol grand mbubu loolu ci patriotisme la bokk mais sénégalais yi boo leen bëgg a delloowaat ci seen ay valeur xam nga loolu dafa nekk loo xam ne dafay joué ci économie bi parce que combien de tailleurs ñoo nekk ci Sénégal nga dem jëndi sa benn jiin jiin bi boo ko jëndee ñaata at lay defak ak yow nga koy sol doo jëndaat jiin tailleur bi kañ lay ñawlu événement ba événement kañ la Sénégal di développé soo amee nijaayu tailleur wala nga am jëkkëru tailleur wala nga am ki est-ce que di ko yëg ah mel ni kii mu ki toog ci sama wet ne bëgg maa wax turam pantalon lay sol te jigéen la yow pan jigéen buy sol pantalon kañ lay développé réew mi pantalon bi nga sol yaa ngi ko jëndee ji bitim réew te dërëm bi ngay jël di ko génnee Sénégal di ko yóbbu ci bitim réew. mais yaa ngi koy xeeb mais mu ngay développé réew moomu noonu parce que kooku société la yore ñaata jiin la xale yi jigéen yi di sol léegi xale bu jigéen booy gis muy sol sër wala mu sol yére wolof xew ba xew léegi Sénégal ñaata lay perte ci ay millions ci ay conteneuru jiin yoo xam ne tailleur ñoo ko waroon a ñaw ñaata la ci Sénégal di perte est-ce que Sénégal yaa ngi réfléchir ci loolu. pour être un euh, un patriote loolu dafay développer réew bàyyi xel ci loolu jigéen ñi sol leen jiin pas ndigal mooy ñàkk pexe xam nga des fois dana am ndigal loo xam ne ndigalu tasxiir la manaa maanaa def ko def ko comme nu mu la neexee mooy sol leen jiin mais pas man maa wax ngeen dem soli jiin non sol leen jiin mais mais ngeen bàyyi xel sër pour tailleur bi nga bàyyi xel taille pour tailleur bi. nga bàyyi xel musóor pour tailleur bi parce que tailleur bi ci kër gi la bokk tailleur bi ci Sénégal la bokk tailleur bi dafa am location bu mu war a fay tailleur bi dafa war a fay ndox a courant mais tailleur bi dafa war a daw yóbbu dépense am këram mais kañ ngay participer ci tailleur boobu kañ ngay participer ci baykat bi kañ ngay participer ah ci jaaykat bi donc jigéen ñi am naa lu ma metti man Cheikh Omar Diop mooy bu ma leen gisee ngeen sol ay pantalon bi daaneel économie réew mi te pantalon yooyu ngeen sol ñu ngi koy importer dañ koy importer dañ koy jëlee ji bitim réew ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dooleel euh, at ñu ngi dooleel nit ñi ñeneen ñi bàyyi suñu bopp te nit ki waroo xeeb un franc bi ngay jël di ko def ci li nga xam ne mooy sa poos te dërëm bi ngay jël di ko yóbbu ci poosu jàmbur yaa ngi koy xeeb mais jàmbur ba xeebu ko ndax ci la tabax ay immeuble am yi ngay seen di ko ñee ci sa dërëm boobu la ko tabax yaa ngi koy fàtte nag waaye tey boo demee fu mel ni Chine gis nga gra e, e, immeuble yi ñuy tabax ay gratte-ciel la ñuy tabax fan lañ jëlee seen gratte-ciel yooyu mooy africains yi jënd marchandises chinois yi di ko utiliser fàtte Sénégal da ngay gis kenn koo xam ne dafay am chantier këram su amee sànc këram naka lay def day dem Chine jëndi conteneur yépp ci lim ci soxla yëpp indi jóor ko ci réew mi benn benn benn benn benn dagmit dammitu euh, euh, euh, matérielu senegal doo ko gis këram senegale yi duñ ci sentir seen bopp ci biir këram loolu baaxul sénégalais yi war na au moins bu dee buntu bi sax nga jox ko menuisier métallique bi wala nga jox ko menuisier bois bi au moins mu am ci sa sànce bi ñaari portu même bu dee sax da ngay jël portu véranda bi nga ne bii moom benn sama kër gi yëpp dinaa ko importer mais dinaa jël benn portu véranda bi ma jox ko menuisier bi ci nekk ci koñ bi mu def ko mu ñaaw ma gis ko ci sama kër gi pour sax au moins menuisier bi am benn jour boo xam ne dina añ ndax man bu ko xeeb man maa la ko conseillé yow sénégalais bi bu ko xeeb en tant que sénégalais bul xeeb menuisier bi li nga koy jox mu def ko. ki li nga xam ne mooy poosam mais mu jëm ci réew mi kon sénégalais bi pour nekk patriotisme loolu daf koy si maanaam significat signe la pour être euh, patriote nit ki war na mën a góorlu ci réewam waaye acte yi muy def bu mu ko fàtte boo bëggee dara fi nga koy jëndee soo demee ba ca marché ba wala ca supermarché bi di jënd del def choix ci li Sénégalais yi def soo xoolee nit ñi tey fi ne nii am na fi ay marché yu xew bees ah seen tur yi bëgguma ko tudd ñëpp ñu ngi riir dem ci vers marché yooyu mais même boo demee vers marché boobu soo demee la fa nekk di alalu Sénégal jënd ko comme mënuloo fa ñàkk dugg dem vers va aller là mais soo demee ba ci biir foofu. comme t'es obliser nga dem fa parce que choix la kenn du orienté nit ci ay choix am mais boo demee ba ci biir foofu jëlal la fa Sénégal moom bul ko xeeb parce que boo ko jëlee mais ka maire ba ca koñ ba ci moom lañ ko jëlee pour indi ko foofu endroit bi moo am tur rek mais matériel yi fa nekk matériel Sénégal la jëlal bu sénégalais bi su amee bu étranger ba bàyyi fa bu étranger ba mais nga jël bu Sénégal sénégalais yi nañ consommer consommer li nga xam ne mooy made in Sénégal Sénégal nañu jël li sénégalais yi defar ñu koy consommer ñu bañ a nekk ay complexe ah ñu bañ a nekk ay complexe di xeeb li ñu moom parce que lii Dubaï la jógee lii Chine la jóge lii États-Unis la jógee lii Canada la jóge lii Turquie la jógee yooyu amul njariñ xam nga lan moo am njariñ lii de. sama doome nijaay bi nekk ci bopp koñ bii moo ko fi liggéey lii ngaay gii la jóge lii kat euh, euh, Pekes la jóge wala lii Saalum la jóge wala lii dakaar la jóge walla lii mu ngi jóge waalo comme c'est supposons tey ceebu waalo bi ñëpp xam nañ ne amul gom amul suukar ñëpp nangu nañ ko mais sénégalais yi am nañ problème di jël ceebu mbay mi di ko consommer te pourtant ceebu mbay mi baax na mais Sénégal la nañ ko jël même bu fekkee ne yow bugguloo ceebu ceebu mbay mi mais nga di ko togg une fois ci biir semaine bi sa kër une fois boobu ngay togg sa ngay togg ceeb bi sa kër bu ko bu ko xeeb bu ko xepp sénégalais bi Sénégal bu fekkee ne da nga da nga xeeb dégg nga bu fekkee ne Sénégal ngay ngay nga nga nekk nga ne man munuma munuma munuma lekk ceebu mbay mi mais nga togg ko sa kër benn yoon nga participer ci waalo ceebu waalo bi benn yoon si ceebu mbay bi benn yoon bu ko xeeb parce que soo xoolee yow boo toggee benn yoon ma togg benn yoon Samba togg benn yoon dem benn togg benn yoon mais au moins dinañ jël lu mat ay cent mille tonnes wala deux cent mille ton yoo xam ne sénégalais dinañ ko consommer benn yoon par semaine ci ceebu mbay mi bu ko xeeb. parce que soo defee benn yoon comme man euh, maa ngi fàtt maa ngi maa ngi kii maa ngi gis ay taalibe yoo xam ne dañuy ñëw sama kër chaque chaque suba teel di yalwaan ci man chaque matin dañuy ñëw ci yalwaan ci man mais chaque matin ma jox leen 2000 francs da waxuma ko pour euh, jëf lu baax wax ko mais dama koy wax pour fàttali ñuy pousse taalibe bi di ko pousse pour mu dem bañ jox taalibe bi parce que dafay yalwaan parce que soo ko bëmaxee mu dem. mais dafay dem ci keneen distance bi muy jugee ci yow di dem ci keneen loolu mooy l'enfant de la rue diggante bi muy jugee ci yow di dem ci kooku mooy l'enfant de la rue léegi nag man ñoom bu xëyee dañuy def directement sama kër rek toog xaar duñ bougé dem fenn su ma génnee jox leen deux plan rek pare nañ ñibbi nañ loolu ma gis man na maa ngi koy def pour bañ ñu dem taxawaayu ndax mën oto mën na fël benn taalibe dara mën na daanu ci kaw taalibe yooyu yëpp maa ngi koy xalaat su doon sama doom aw ma aw ma suwa aw ma pexe su ma sañoon dañuy toog seen kër ma jox leen añ jox leen reer jox leen ndékk duñu génn parce que loolu la ma sama papa defaloon ba ma màgg yegg yegg yegg ni ma yegg xam naa lan mooy njàng alxuraan du lu ñu war a foy mais bi ma calculer li ma leen jox ci mille francs mat na 3 millions et poussière ma xool na man daara bi sama alal ci participation def naa ci plus de 3 millions et poussière ci daara bi mais imagine lu mat 100 personnes doon ko def comme man mën nañu am cent 300000 francs par jour. kon jëkkati sa 100 francs jox ko taalibe walla nga jëkkati sa 200 francs jox ko taalibe diñ ko teggil sas biñ ko sas ba keroog ñuy mën a am temps revoir système boobu pour mën a dindi taalibe yi ñuy sas mais soo ko bañee jox ga tàddeel nga réew mi xam nga lu tax tàddeel nga réew mi dafay dem chercher ji ko ailleurs il faut mu am liñ ko sas soo ko joxee rek ma jox ko rek day teel a gaaw am li mu soxla gaaw dem jàngi jur boobu yow sauvé nga taalibe bi même si c'est deux ou trois minutes bu ko xep c'est ça loolu la ñuy wax patriote patriotisme mooy loolu nit kii la ñëw di la demander am nga loo ko jox jox ko gaaw mu dem parce que soo ko joxul day xaar keneen wala mu xaar di toog di boobu muy toog di xaar wala mën na ko pousser ci dem ci defi leneen wala mën na ko pousser mu dem ci loo xam ne waru koo def kon Sénégal bi ñoo ko moom Sénégal c'est pour nous ñun ñoo moom Sénégal te ñun ñooy développé Sénégal bokk na ci kersa patriote dafay am kersa ruus def loo xam ne wala nga ruus mag dugg ci kaar gis mag bu ñëw nga jóg may ko loolu ci patriote la bokk ci patriotisme ci la bokk nit ki mën na ñëw nit ki mën na ñëw dugg ci kaar bi nga xam ne ci kaar bi mu dugg fekk na nit ñëpp toog mais ci discipline ak yar bi ñu Sénégal bi ñu xamee sénégalais bi mooy bu mag ñuy taxaw xale dafa war a jóg may ko mu toog sans autant que mu ngay xaar mu la koy demandé. moo tax lii lépp bokk na ci li nga xam ne mooy patriotisme patriotisme daal a ngi noonu euh, bokk na ci bu ñu la dénkee euh, instance nga gérer ko ni nga ko war a gérer suñ la dénkee xaalis. gérer ko ni ko war a gérer nga téye ko ba nga xam ne doo ko lekk doo sàgganee kenn ku koy yàq nga di ko seetaan nga téye ko di ñëw heure di wàcc heure bokk na ci li nga xam ne mooy patriotisme booy liggéey ci service ngay xëy heure di wàcc heure parce que borom service bi bu développé Sénégal moo développé ci borom service bu daanoo Sénégal mooy perte rek parce que ñaata service ñoo fi nekkoon di liggéey ba yàgg ñu daanu ña fa nekkoon ay sénégalais rek lañ ñoo wëlbatiku waa ci yeneen service dem di taxawaalu ju foofu wala ñuy defaat yeneen activité te loolu mën mën naa ñàkk mooy euh, euh, euh, su fekkee ne respecté nga heure xëy heure wàcc heure donc loolu bokk na ci li nga xam ne mooy économie réew mi te it ci le patriotisme mu des nag li nga xam ne mooy wàllu éducation éducation nag mooy wàllu yar ndax yar yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne addaba nii rabbi ahsana tahdibi man sama borom moo ma yar waaye rafetal na sama yar waaye ana yar boobu ko yàlla yar lan la ko jëriñ lan la ko jox mooy wa wa ne wa innaka la ala xuliqil azim yàlla wax na ko na ko yow yaa leen gën a kawe jikko ndax yar égal jikko éducation nag moom ci la réew di développé ci la réew di amee stabilité ci la lépp di baax yi tey mag ñi nga gis tey ñu nekk ci réew mi tey ba bàyyi Sénégal ci Afrique mu nekk exemple ci àddina bi tey lan moo may Sénégal stabilité bi mu am ku ne xam na ne du wàllu technologie du wàllu économie du dara éducation rek la parce que mag ñi fi nekk dañ leen yaroon yaru daara yar leen yaru lislaam yar leen ci anam boo xam ne dañuy am le pardon dañuy xam le pardon dañuy baale dañuy jéggale dañuy jëllale dañuy muñ dañuy fàtte dañ lay denc dencal la sutura ëmbal la lu bari te duñu la ko wan loolu bokk na ci li tax senegal am stabilité bi mu am nii ci sous-région bi ñu nekk nii ci Afrique gi ñu nekk nii. parce que réew yi ñu gën a jege yëpp benn réew mu ci nekk am na ay yëngu-yëngu te tamit ñoom seen yar bi ñu am ci loolu la sukkandiku ba yàlla may ñu tey stabilité bi ñu am ak seen ñaan yi nga xam ne bàyyil nañu ko fi kon loolu waruñu ko yàq. waruñu ko sàggane waruñu ko fàtte moo tax nag tey ñu ñëw pour dugg ak yéen ci wàllu éducation ci wàllu yar ana doom aadama bi lan mooy ay responsabilité am ci doom bi mu jur pour yar ko kañ la ko war a yar naka la ko war a yaree ak fan lañ koy yaree moo tax nit ki su fekkee te yàlla dogal na ci yow nga takk soxna ba pare. boo takkee soxna ba pare am na foo war a commencé yar su fekkee amagoo soxna am na foo war a commencé yar soo fekkee am nga soxna ba am doom am na foo war a commencé yar ah, foo am na koo xam ne am na soxna am na doom ba doom ji màgg na fan la ko war a commencé yar ndax am na koo xam ne dina am doom te du ko yar si mu toll ci doom boobu naka la koy yaree fan la ko war a yaree am na koo xam ne am na soxna waaye amagul doom kooku naka la war a mën a yare doomam bu doomam juddoo am na koo xam ne doomam xale la war na koo yar toll na ci ñu yar ko naka la ko war a yare am na koo xam ne doom bi juddoogul doom juddoogul naka lañ koy yare am na koo xam ne waxuma la sax am doom waxuma la am soxna waaye soxna sax amagu ko taw bëgg na yar doomam naka la war a yare doomam yooyu yëpp dinañ ci dugg éducation mooy nga jàngal sa doom nga yar sa doom fexe ba moom mu xàmmee li nga xam ne moo ko war mu xàmmee ay frontière mu xàmmee li nga xam ne mooy ay responsabilité am mu xàmmee li nga xam ne mooy ay parents am xam ay mbokkam mu xàmmee li nga xam ne mooy ay dëkkandooram mu xàmmee ñi nga xam ne ñooy ay nawleem li nga xam ne ñooy ay àndandooram mu xàmmee leen tamit mu xàmmee kan la war a àndal ak kum warta àndal mu xàmmee naka la war a àndee ñim war a àndal naka la xam ki nga war a àndal di ànd ak moom waaye war na ci yow it nga xam naka nga war a àndee ak moom te loolu dañ ko war a def ci xale bi nga xam ne moom lañuy yar waaye dafa am wax leen benn anecdote dafa am benn waay bu ñëwoon ci man yàlla def mu bind benn livre mu wax ma livre bi laaj ma sama xalaat ci livre bi mu ne ma man dama bind livre bi li ma ko li tax ma bind ko mooy wan wax kañ lañ war a tabax nit ki pour mu mën a nekk koo xam ne dina mën a gàddu ay responsabilités di mën a def di mën a dindi ma laaj ko mu ne ma moom livre bi mu ngi wax ne livre bi daal nit ki bu juddoo rek war nañ koo foofu ci foofu mu juddoo lañ ko war a commencé di ko yar di ko defar di ko toppatoo jàngal ko dugal ko école former ko yooyu yëpp mu expliqué étape yëpp ba mu mat ma ne ko déedéet nit ki foofu ñu ko war a commencé foofu la yow fi nga wax ne fa lañ war a commencé foofu fekk nit ki pare na ba pare donc loolu ku ko kooko wax dina xaw a dina xaw a jaaxle parce que nit ki soog a juddu rek euh, ñu ne kooku pare na ma ne ko ma jox ko benn exemple ci téléphone am bi nga xam ne moom la yoroon ma ne ko téléphone bii nga yor jour bi nga xamee ne jour boobu nga ko jënd jour boobu la liir bi juddu jour boobu nga ko jënd boobu fekk téléphone bi defar nañ ko ba pare taay bi rek jël nañ ko micro bi ci war a dem choisir nañ ko écran bi ci war a dem xool nañ ko. mémoire téléphone bi xam na bañ capacité la war a am téléphone bi xam nañ ban couleur lañ ko war a def téléphone bi xam nañ ban destination la war a dem Afrique lañ koy jaay au Europe wala fan lañ ko war a yóbbu kan moo ko war a jaay loolu yëpp def nañ soo ba pare yow nga soog jot kooku kon fooku produit fini nga am yow. kon doom bi bu fekkee dafa judd ba pare yow amaguloo kuy soog a ñëw ku pare nga am kooku waruñu xale commencé yar xale foofu parce que sax loolu bokk na ci li tax suñu système éducatif bi. Euh, yàqu li tax sénégalais yi seen idéologie mënuñu am xam-xamu wala xalaatu di def ay invention loolu bokk na ci li ñu rey mooy dañoo foog ne su xale bi amee sept lañ ko war a commencé tabax te fekk na ma ne ko xale bi nag kañ lañ ko war a commencé tabax ma ne ko xale bi ma ne ko di nga dégg nit ki wax sama maam maam bi am na lu la lii ak moom ma ne ko nit dina wax sama papa papa bi am na lu la liyee ak moom nit dina wax sama yaay yaay bi dina am na lu la liyee ak moom ma ne ko nga doom Adama soo buggee nga yar sa doom yar bu baax ma ne ko nit ki balaa muy ñëw lañ koy yar dañ koy tànnal yaay ci lañ koy tànnalee baay ci lañ koy tànnalee ah, ki nga xam ne foofu lay juddoo ak ni muy juddoo ma ne ko nit ki ci fekkee ne tey mu ngi nekk ci oxygène ñëwagul sax ci kii bi ñëwagul ci spermatozoïde bi jógeegul foofu dem ci yaay bi baal ma ci terme bi jógeegul foofu ñëw ci yaay bi yaay bi di ko ëmb di ko di ko di ko di ko di ko préparé yaay boobu di yaay boobu ma jox ko benn exemple ma ne ko doom bi ñëw dafa mel ni daaru société doom bi mooy produit bi ma ne ko yaay bi mooy producteur bi ma ne yaay bi mooy kiy defar produit bi papa bi mooy société bi société bi dafa war a am licence mooy ndax papa bi takk na yaay ji loolu dafa important ci doom bii ñëw ndax papa bi bëgg na yaay ji est-ce que yaay ji bëgg na papa ji ñaar yooyu bu amee li loolu mooy licence su société boobu pour mu mën a def production léegi nag su fekkee ne nag yaay ji ci jëmmi boppam. yaay bi ëmb na yaay ji ci boppam moom mooy kii war a defar produit bi kooku dañuy war a xool ba xam en na am na expérience expérience pour mën a def produit bi ba nga xam ne produit bi su production bi paree kenn du ko critiquer kenn du gis euh, erreur production bi kenn du gis benn faille ci production bi parce que kooku di war a def produit bi ku war a def production bi kooku dafa war a am niveau expérience ak tamit mu am formation bu baax. ba nga xam ne su defee produit bi kenn du critique produit bi ma ne ko mooy yaay bi nga xam ne yaay bu yar ñuy wax naan kii soxna la la moo soxna dans wolof mooy jigéen boo xam ne dafa pare pour sëy jigéen boo xam ne dafa bëgg jëkkëram déggal jëkkëram nangul jëkkëram nekk ci ay ndigali jëkkëram du dépassé jëkkëram du ko sàllalu du ko manqué de respect du xaayu suturaam du ko toroxal kooku su produire benn production su génnee zéro faute lay nekk moo waral yaay boobu nag lañ war a def soit xool ko indi ko kooku mooy doon producteur bi kooku mooy ki nga xam ne moo war a construire xale bi war a juddu kooku suñ ko su ko amee ba pare su juddoo xale bi bu juddoo rek moom la ñuy wax liggéeyu ndey añu doom booba day fekk xale bi yaay bi ko war a jur jur na ko léegi nag mu des environnement bi nga xam ne foofu la ñu wala vivre léegi yan xale lañ ko war a booleel. kan la war a foo foondooram sax ci bi muy raam dañ ko war a préparer objet yi nga xam ne moom lañ koy jëndal pour mu nekk ay outils yi nga xam ne moom lay foyee pour mën a màgg ak moom yooyu dañu war a am dafa war a am ay choix ñu bàyyi xel xale bi ci objet yooyu ban objet la ci gën a ñeme ban la ci gën a bëgg yooyu yëpp dafa am importance ci yaru xale bi ak moment bi nga xamee ne yaay bi ëmb na xale bi baay bi an bana rôle moo ko war ci ëmb bi ban communication moo ko war ci xale bi pour mu koy communiquer ak xale bi ci xale bi communication bi nga xam ne yaay bi moom la war a communiquer ak xale bi ci moment bi nga xamee ne moom la ko yaay ji ëmb dafa war a am communication dañoo war a nekk ay ay xarit dañoo war a dañoo war a déggante dañoo war di jokkoo fekk xale bi mu ngi ci biiru yaay ji loolu yëpp dafa laaj li nga xam ne pour préparer kii ñëw pour mu mën a nekk ki nga xam ne moom nga bëgg mu nekk foofu lañ koy préparé mais am na yu bëri yu ñu waxtaanee xajul ci émission bi dama jox benn anecdote rek ma ne ko nag lii nga war a njëkkee fee dafa pare fii lañ ko war a commencé mu ne ma ah li nga ma wax de vraiment lii il faut ma boolewaat ko ci livre bi ma ne ko ni nga koy def mooy da koy def tom 1 et tome 2 première bi ma la wax mooy dem doo doon tome 1 bi bee mooy nekk tome tome de bi donc loolu dafa important ci wàllu éducation éducation bokk na ci nga jëru sa doom. nga nekk le responsable première chose mooy doom bu xasee juddu lu bëri rëcce la ci moom soo bëggee dabaatal soo bëggee dabaatal fekk lee weesu na la defoo suwaa ci yaay gi dafa ñëw rek accidentellement nga takk ko ngeen nobante rek ngeen bëggante rek ngeen sëy defoo étude ci yaay gi gëstuwuloo yaay ji xooluloo ko su xale bi juddoo première première départ sa diggante ak xale bi mooy être responsable sur lui nga nekk responsable sa doom nga fexe sa xale bi yëpp nga gàddu ko su waree faju nga yóbbu ko mu faju su waree dem hôpital ñu yóbbu ko su waree soo wàccee nga tal ko nga di ko déglu di ko communiquer ak xale bi bañ di ko sànni di ko fob di ko teg sa kaw di communiquer ak xale bi ba xale bi màgg éducation foofu lay commencé nga xam ne léegi di nga mën a préparer sa doom psychologiquement dañ ko mën a wax lii baaxul lii duñ ko wax xale bi am na moment boo xam ne foofu lay enregistré li mu war a xam ci àddina fu mu lay demander des questions nga di ko répondre tal ko mu lay laaj nga di ko tontu parce que am na lu muy gis xam ko xam nu ñu ko ooyee dafa lay laaj nga di ko waxal yooyu te foofu éducation bi foofu lay commencé. soo paree nag nga jël sa doom su waree dem jàngi nga yóbbu ko école mu dem jàngi nga bañ koo bàyyi nga yóbbu ko mu jàngi soo ko yóbboo mu jàngi ngay vérifier. jàngam est-ce que mu ngi aw ci yoon loolu mooy éducation bi soo paree ci loolu yëpp nag ba pare nga continuer def éducation bi entre yow ak moom mooy lan mooy nga fexe communiquer ak moom ba xam lan mooy objectif am moom xale bi nga nga ñëw boo ñëwee yow boo defee li la war ba pare dafa am loo xam ne yàlla moo koy moom ci xale bi mooy yàlla mën na def yow li nga bëgg ak li nga bëgg xale bi def mu defal la mu def ko mais su fekkee am na contrainte nga wëlbatiku bëgg li xale bi bëgg bëggalee ana nan ngay def ba adapté wu wala nan ngay def ba mën a euh, am am am am connexion ak xale bi mooy nga accepté li yàlla def ci moom orientation bi ko yàlla euh, euh, orienté mais nga accompagner ko bañ ko bàyyi. xale dañ koy éduquer éducation dafa am solo ci xale yi xale dañ koy accompagner. teel a démissionné ci xale danay waral éducation bu raté en même temps boo gisee mag ñi daan jël seen kër di ko def kër gu rëy mu nekk kër famille xam nga lu taxoon dañ daan bañ rëcc nga rëcc dañ la daan yar ba pare ba ba ngay samp kër da ngay nekk ci biir kër gi papa ji di la xool soo bëggee déborder mu cadré waat la soo bëggee rëcc ñu delloo si la soo bëggee def lu ñaaw ñu yedd la loolu daf daan tax nit ki xam éducation nit ki xam ay responsabilité ndax responsabilité dafa nekk loo xam ne dafa partagé nit ki nag jabar ji ak ak jëkkër ji ci doom bi ñoom ñaar war nañoo war nañoo mën a war nañoo mën a séq xale bi bañ a bañ a daw def démission ci xale bi am na ci ñoo xam ne nag des fois dinañu am ay surprise yoo xam ne ci seen ay doom ay malformation ak xale bu juddu yàlla dogal ci moom xel mi neexul wala xale bi juddu yàlla def ci moom amul xel mu nekk koo xam ne li ñuy woowee dof ci terme bi ñu baal ma ko souvent da ngay gis ñoo xam ne dañuy am doom doom bi dof léegi ñu démissionné ci xale bi wàcc ko mënuma concevoir nit ku am doom sa doom dof nga wàcc ko ci mbedd bi muy taxawaalu parce que nekk amatul xel mais yaa mais y' a des choses yoo xam ne sa alal la gis nga même baaraamaam yaa ko moom mbubu bi muy sol yaa ko moom doom bi même bu dofee doom bi yaa ko moom dof boobu yaa ko moom sa alal la mais raxas ko ba mu set fomp ko ba mu set utal ko benn néeg ci kër gi nga dugal ko fa wala nga luweel ko sax néeg teg ko fa dugal ko fa ut néeg tegal ko fa su fekkee am nga moyens su fekkee amuloo moyens yi mais war nga mën a saisir l' état wala nga xool ay ndimbal ñu jàppale la ci xale boobu mais Sénégal ngay gis. ñu am doom doom bi dof nekk waa kër waa quartier bi nit ñi xam ne diw mii mooy diw daan na am ak relation nit ñi daan na am ak relation koñu bi mu dof du am kenn ku def benn volonté pour mën a jàppale xale boobu ñu utal ko penn fuñ ko dugal parce que nit ki mën nga am sa xarit sa xarit bi dof mais sa xarit bu bu xasee dof a ko war a ko sànni yow war nga mën a dem ci ay parents am ñu xool ban ban solution la ñuy jël ci xale boobu dof pour mën ko dimbale parce que sa xarit la woon wala sa dëkkandoo la woon wala xale bu yaru la woon doon la nuyu nan ngay lan ngay participer ci xale boobu te fekk Sénégal la parce que li ñu doon waxtaanee léegi rek le Sénégal et les Sénégalais quand tu su xale bi dofee dangay bàyyi quand Sénégal su xale bi dofee da nga ciy def sa wàll léegi nag man loolu lu ma ciy joxe comme comme comme comme solution mooy état bi nga xam ne moo ñu moom wala moom lañ dénk suñu alal boobu ci yoon li gënoon mooy mu mu mu ut fële ci ci àll ba benn benn dëkk village boo xam ne ñoom ñoo koy moom képp koo xam ne dem nga ba sa taqali ko sa sago ñu yóbbu la foofu ut ay nit yoo xam ne dañ leen di jël di leen fay pour ñoom su ko defee dof yi génn ci mbedd mi ñu yóbbu leen ci leen parce que man bi ma nekkee Sénégal ba léegi euh, fàttalikuwu moom fu ma gisee rek dox rek gis benn dofu naari libanais gisaguma ko ñoom niñ def technique biñ def ba seen dof du feeñ seen dof du génn sénégalais war nañ koo gëstu xam ko copier loolu ci ñoom parce que Sénégal y a de dof dof yi fi nekk dafay déranger population bi dof sax day wàllante nit ñi la dof walla nit dof te nit ku du xam ne wàll nañ ko dof mën nga dof sax te fekk na doo yëy ay sagar donc dof nit ki dañ ko nit la koo xam ne dafa taqali ko ak sagom waaye yërmande doomu aadama war na mën a tax ñu xalaat ut solution ci moom pour teggil ko au moins bu dee cent pour cent cent la sax ñu teggil ko au moins vingt pour cent ci coono addinaam ndax mu mën a sentir boppam ci àddina au moins parce que danañ am ay moment yoo xam ne danañ nekk nit du tout le temps la ñuy dof dof boo mënti gis du nekk tout le temps dof day am période yoo xam ne day nekk dof am période yoo xam ne dina nekk nit période yi mii nekk nit mu yëg boppam ci àddina tuuti au moins loolu état de Sénégal laa ci interpellé ak ñi nga xam ne ñooy bon volonté yi ak borom yërmande yi ak ñi nga xam ne bu ñu gisee lu bon xam ne lu bon la loolu vraiment maa ngi leen ci wax comme ci wàllu éducation bi. suñ ñëwee ci wàllu éducation bi ci li nga xam ne mooy euh, wàllu wàllu wàllu système scolarité bi euh, man gis naa ñuy jàngale ñuy jàngale arabe. ñii di jàngale anglais ñii di jàngale français ñii di jàngale leneen ak leneen loolu bokk na ci li gën a tardeel scolarité bi ak li gën a tardeel éducation bi ak lu gën a tardeel Sénégal yi lu ci la bokk xam nga nit koo xam ni bi ngay bi nga nekkee ci sa maam wolof lañ la doon wax nga koy dégg nga jógee ci sa maam ñëw ci sa baay wolof lañ lay wax nga di ko dégg ngeen baal ma terme bi ngeen nga jógee ci sa papa ñëw ci sa wayjur wu jigéen ñu lay làkk wolof nga di ko dégg neuf mois ñuy wax wolof sa nopp yi nga di ko dégg nga juddu ñu lay wax wolof nga di ko dégg nga am sept ñu lay wax wolof wala beneen làkk nga màgg ñu war la jàngal ci làkk boobu nga xam ne sa mémoire sa sa euh, euh, sa sa mémoire loolu la mës xam nga dem ba am sept ans ñu commencé nag di la jàngal beneen làkk bu bokkul ak bi nga xam ne moom nga nàmpoon wala làkk bi nga xam ne moom nga màggaale loolu day tax sa niveau intelligence day freiné wu day tax message yi nga doon recevoir daf koy coupé dafay tax nga daf lay dégoûté dafay tax yow sa psychologie day dégoûté wu te dégoût dégoûtement ci psychologie mooy waral nit ki dootul ba def dootul nekk quelqu'un koo xam ne day nekk inventeur loolu il faut ñu revoiraat ko il faut ñu xoolaat ko en même temps tamit nit ki su fekkee ne yàlla may na ko chance mu nekk di jàng langue wolof mais nañ ko jàngal ci moment bi nga xam ne ci la nekk di dund ñu koy nettali histoire yi passé mais ce qui est mooy ñun duñ ñu wax li teew mais dañuy jàngal ay 1800 ay nangam te loolu dañ ko war a fàttali mais waruñu ko waruñu ko jàngal parce que histoire la yoo xam ne danañ dund ba dee duñ gis dara dañ duñ gis dara lu nuroog loolu ci suñu àddina donc pour ñu jàngal ñu ko lan la ñuy servir donc nit ki soo buggee mu nekk borom xam-xam da ngay fexe mu am ay réflexion yoo xam ne. dafay méngoo ak moment bi mu nekk di ci dundu loolu dina ko permettre ba ay message yiy ñëw ci moom mu mën ko capter mu mën ko mémoriser mu mën ko euh, analyser parce que nit ki ci nga nekk di fa dund foofu nga mën a développer sa sa sa sa ci sa ci sa bopp foofu nga mën a développer ci sa xalaat donc àddina Sénégal maa ngi conseil euh, ministère maa ngi wax ci ministère de la santé ministère euh, ministère de l'éducation pour ñu revoiraat Euh, système bi nga xam ne moom la ñuy jàngal suñu xale yi xale yi war nañ leen a mën a jàngal liñ leen di jàngal mu dëppoo ak li nga xam ne moom la ñuy dund et puis ñu jàngal leen loo xam ne dafay méngoo ak li nga xam ne moom la ñuy jëfee parce que Sénégal boo gisee éducation bi li tax xale yi bu ñu jàngee du ñu mën a comprendre li ñuy jàng parce que dañuy jàng di gis mag nit ñi di def leneen lu wuuteeg la ñuy jàng parce que tey bu fekkee tey dañ lay jàngal. Eh, doo mës a gis li ngay jàng ci mag yi ñu koy jëfee loolu dina la tardel comme exemple tey nga nekk koo xam ne da ngay jàng vacance jot nga gis sa papa takk ay bagages am dem Europe au lieu mu dem Mbuur nga ànd fa ak moom wala mu dem sali ngeen ànd fa mu jàngal la bëgg sa réew dañ lay buub yóbbu la Europe wala ñu buub la yóbbu la Amérique nga dem defi vacance foofu mu mel ni sa réew amul ay valeur yoo xam ne war nga fa mën a bégale sa xol. donc Sénégal réew la moo xam ne réew mu riche la réew la moo xam ne nit ñi mën nañ fee tabaxoo ba mën a baax parce que lii tabax nit niñ fi valeurs yi nga xam ne mooy tabax nit ba nit nekk ki mu bëgg a doon valeurs yooyu mi ngi fii mi ngi ci mag ñi mu ngi ci borom xam-xam yi mu ngi ci jàngalekat yi mu ngi ci euh, euh, euh, ci santé bi mi ngi côté yëpp da nga gis nit nag koo xam ne danañ ko yar ba pare. mu génn environnement bi mu nekk yàq ko maanaa xarit yi muy àndal yàq yar bi nga xam ne moom la ay waajuram defoon ci moom loolu nag dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo volonté wu pour loolu nit ñi nga xam ne yar nañ leen ba pare ñu wëlbati di yàqu loolu dafa nekk loo xam ne lu bëree baree baree baree bare ci société bi tey xale yi ngay gis ñuy agressé xale yi ngay gis ñuy drogué xale yi nga xam ne ñoom ngay gis ñu nekk ci mbit mbedd mi di taxawaalu ñu ci bëri yaroon nañ leen ba seeni waajur am ci ñoom yaakaar waaye ñu xëy rek yaakaaroo yàkket ñu xëy xëy rek seen yaakaar tas donc loolu am na ci lu bari loo xam ne sëriñ si ñu ngi koy liggéey sëriñ si nga gis ñuy def ay tarbiya da ngay gis nit koo xam ne yàq woon na mais tey grâce à les marabouts tax na ñu ñu ñu intégré waat leen ci société bi man mii di wax ak yéen kenn laa ci ñooñu yàlla may na ma chance 1995 laa nekk Dalifort ki may joxe exemple ci man parce que lu ma wax noonu lu am la 1995 laa nekk Dalifort bi ma nekkee Dalifort di fa di fa euh, dëkk fa mais am na ñu bari ñu fa nekkoon yoo xam ne affaire banditisme moo la neexoon ñi ay drogué lañ ñii ay agresseur lañ ma fekk leen fa récupérer leen defar leen. ba tey société bi accepté waat leen 95 ba 2003 2003 à 2011 2003 ma dem ginnaaw raay ginnaaw raay ba ma fa ñëwee ginnaaw raay dañ fa daan rendi nit ci raay bi nii ma koy gis donc loolu fekk naa ko ginnaaw raay euh, li nga xam ne man moom laa opté pour def mooy tabaxaat tabaxaat li nga xam ne tabax nañ ko ba yàqu ba mu yàqu moo tax ñu bëri tey alhamdulillah am naa euh, côté boobu am naa ci ay réussite ndimbalal yàlla ak barke Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci loolu ci laa récupérer ay jeunes yu bëri à gannaaw tabaxaat leen defaraat leen bañ mën a euh, jëriñ seen réew bañ mën a delluwaat bañ delluwaat ci société bi ba nit ñi mën leen a accepter seen mbokk yi leen sànni woon récupérer waat leen téyewaat leen te loolu mooy rôlu sëriñ loolu mooy rôlu patriotis euh, euh, patriote loolu mooy li nga xam ne mooy Sénégal donc éducation bi nit ki bu yàqoo am na niveau bu mu yàqu yàqoom toll am na kuñ ko war a orienter pour mu mën ko récupérer donc nit ñi bu ñu découragé mukk ci xale yi nga xam ne ñu ngi gis ci ñoom lu uute ak li nga xam ne moom lañ doon xaar ci ñoom donc nit ki su fekkee ne sa doom dafa yàqu da ngay seet koo xam ne yàlla may na ko xam-xam ci loolu nga impliqué ko ci sa biir njaboot comme ça yenn yi mu mën di la ci dimbale ci li nga xam ne moom mooy wàllu récupération récupéré waat xale yi ak orienté waat leen parce que nit ki nag mënuloo defar lépp ba mu sotti am na loo xam ne da koy def am loo xam ne dañ la koy defal li nga xam ne mën nga ko def nga defal ko sa bopp li nga xam ne mënuloo ko def nga ut ndimbal ci ku la ko defal am na ñu bari nag ñoo xam ne danañ yar seen doom ba pare ñu gis nit ñëw récupérer seen doom yàqal leen ko am na ñooñu nag soit disant les sëriñ dañuy wax ne ay sëriñ lañ fekk ñoom dañuy récupérer doomi jàmbur yi pour di leen exploité mais am na ñoo xam ne nag dañuy récupérer dañuy jël ku yàqu ba pare defar ko ba société bi accepté waat ko am na donc am na ci ay ay côté mais du côté yëpp ñoo bon waaye du côté yëpp ñoo baax mais ki nga xam ni yaa ngi xool sa doom am na loo xam ne daawu ko woon def ci wàllu ay jaamu yàlla julli wirde yeewu suba teel def ay ay nawaafilam yooyu soo ci gisee sa doom bu ko aaye encouragé ko et nga sol sa dàll nga dem ci vers son marabu ci sëriñam nga xool kan moo yor sa doom ak kan mooy jëflante ak sa doom ndax sëriñkat ay valeur la am sëriñ kat éducateur la sëriñ kat koy joxe ay tegtal yu baax la moo tax su nit ki yàlla xiiree sa doom muy dem ci sëriñ santal yàlla moo gën nga wàcc ko muy dem ci leneen loo xam ne du jaam yàlla kon li may conseillé yi nga xam ne ñooy parents yi nañ góor góorlu di saytu seen njaboot soo tëddee sa kër guddi jot nga fexe ubbi sa buntu néegu néegu doom yi waajur warte tëdd ba bët set te duggul jógul ubbi buntu néegi doomam yi vérifier xale yi est-ce que ñu ngi ci biir néeg bi wala génn nañ kër gi parce que xale yi léegi ñoo ëpp intelligence téeméeri junni yoon mag ñi parce que jumtukaay yi ñuy jëfandikoo ak temps bi ñu tombel la mën nañ la nelawal mën nga ñëw ñu na la carrément maa ngi nii maa ngi simmeeku ji maa ngi tëdd mën nañoo tëdd sax ba nga vérifié ba gis ne tëdd nañ nga nelaw ñu jóg col seen daal na meññ génn dem loolu ñu leen koy tax a def mooy àndandoor yi nga xam ne ñoom la ñuy am ñoo leen di poussé ñuy dugg ci yooyu noonu nga xam ne waruñu cee dugg moo tax yar daal maa ngi conseillé bépp waajur di leen ko fàttali mooy buñ mës a découragé jamais ci éducation pour nos enfants xale yi dañoo nekk ñoo xam ne il faut ñu accompagner leen nit ki di nga yar sa doom ba mayee ko mu sëyi tayal gi ngay tayal ci di ko nemmeeku ak di ko ñaax da dana waral sax sëy bu tas nit dina am doom mu takk jabar tayal gi ngay tayal ci nemmeeku nu mu yoree jabaram mën na tax mu wacc jabaram te fekk yow baay bi responsable nga ci loolu ñun suñ yar dafa nekk suñu doom dañ koy topp ba keroog ñuy sàngoo suuf ñu loolu la ñu yàlla wërsëgalee am na ñoo xam ne bu seen doom amee 18 ans rek dañuy démissionné bàyyi ko mu demal boppam mais ñun suñu yar du loolu ñun suñu yar mooy suñ doom bu demee ba nekk mag tamit dañ koy bàyyi mu nekk responsable mais dañ koy fàttali dañ koy nemmeeku ndax ñun dañuy am gàcce ñun dañuy am mbañ gàcce ñun dañuy am sutura ñun dañuy am kersa ñun dañuy am bàjjan ñun dañuy am nijaay ñun dañuy am tànta dañuy am yumpaañ yooyu yëpp dañ koy am te yooyu yëpp boo gisee ñu am ko dara waralul lu ñu am ko mooy pour ku nekk dañuy fàttali waxtu wu nekk ak lu nekk ci lu nekk. moo tax ñun am nañ chance yu bari te yooyu chance dañ ko war a dekkalaat dañ ko war a valoriser waat parce que xale yi kat amatuñu kersa léegi télévision boo seetaanee. da ngay gis koo xam ne day def lu ko neex da ko fecc donc day ay mondialisation la mais terewul man nañu mën a gàdd suñu valeur nit ki war na mën a am kersa donte da am métier boo xam ne yaa ngi ciy def pour am loo lekk mais métier bi ci boppam am na loo ne waroo ko ci def ci métier bi àndu ci yaa ko ci yokku ñàkk kersa warul am ci liggéey ñàkk kersa warut am ci dara nit mën nga am kersa te du tee nga am ful la nit ki mën nga am kersa te du tax nga am fay du tee nga am fayda ni que mën nga am kersa du teex nga am looy bëgg ak looy bañ mais ñàkk kersa taxut ñu ne diw mi kat dafa lii wala di nit ki mën nga am personnalité man bu njëkk ba dama daan gis ay personnalité nit ki di am lu muy bañ maanaam nga nekk nit koo xam ne da ngay diiñ nit koo xam ne da ngay am loo xam ne da nga koy rus nit koo xam ne da am loo xam ne danga koy jomb loolu Sénégal amoon na ko te ñu ngi koy am ba tey waaye wàññeeku na war nañu mën a góor góorlu ci xale yi pour gën leen a fàttali loolu ñu suñ doomee ñuy communiquer ak ñoom bañaa leen a gaaw a responsabiliser bañ leen a dem bañ a démissionné. maa ngi ñaanal parent et parents yëpp ah di ñaanal njaboot yëpp di ñaanal doom yi di ñaanal euh, mag ñi rakk yi bàyyiwuma kenn di leen nuyu di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf.